assalaamu aleykum Monsieur le Président de la République, Madame, Monsieur le ministre, Monsieur le responsable. ci turu al xalifa li taifa atijaniya sëriñ mbay si mansour ñi ngi lay dalal jàmm ko dalal sa soxna di ko dalal ñi nga àndal fa tabaarakallaahu fii nga toog bu doon àll boo gàjj dañuy wax ni doo fi jommi ndax miin na sa baat miin na sa kàddu miin na sa tànk mu mel ni dañuy bàkku ci dooley jàmbur ndax ki waral bés bi di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di boo xam ni itam ki tax ñu di ko dundal dafa moomatul woon dara ci boppam muy Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala anhu li mu am yëpp sédd na ko yonent bi ba moo tax ci wàllu organisation ak ci wàllu taxawaay bu bis bi jotee na mu ko ñaane woon wax ni mu ngi ñaan ku mu ko bokkal nga jàppale ko ci boobaak léegi yàlla ngi ko ci sagal bu ñëwee waxuma ñi mu ko bokkal waaye ñi ko yéene yiw dinañu fi ñëw ngir sàkku yiw ci barke yonent bi ak leeram mooy li nu fi dajale tey eh, yonent bi nag nangu gi mu nangul ñi ko jiitu woon moo ko jox personnalité bi mu am réerewul Ibrahim réerewul Moussa réerewul Aïssa buwaytu li utammim la waxoon kon nangul na ñi ko jiitu woon mu mel ne fa sunu mag ñi nu am fii ñu yaakaar leen ci leer ñoom ñépp yonent ba leen yar ci jikko waaw ndax it eh, wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bi yàlla dafa wax ni bu ñu la tooñee bu la neexee nga fayu parce que sa àq la te yàlla du baal kenn àqu jàmbur àq boroomu ko mën a baale mu wax yonent bi ni ko nag bu fekkee dañ leen tooñ bu leen neexee ngeen fayu waaye li mu gënal mooy ngeen àbb mu jikko yàlla ku ko àbb jikko dara du diis ci yow in sabartum la huwa xeer waaw bu ngeen ma àbbee jikko rek lu bari ngeen mën koo muñ fa tabaarakallaahu loolu moo tax yonent bi ku sonnoon la sonnoon parce que yàlla libéré ko woon pour mu fayonte tabaarakallaahu loolu nekk suñu diggante ak moom muy wax itam ni wa in yuridu an yaxdauka fa inna xasbaka allah huwa alladi ayadaka bi nasrihi kañ dëmb wa bil muminin boo seetloo histoire u l'islam bi ba mu jeex amul fu yàlla waxe yonent bi ñu ko garantiral na la victoire amul lan la ko garantiral moo di an nasr parce que victoire mën nga ko am tey ñàkk ko ëllëg waaye bu dee triomphe nag dafay sax moo tax wa in yuridu an yaxdauka fa inna xasbaka allah huwa alladi ayadaka bi nasri wala ida jaa nasrullahi walfatx triomphe la ko dig euh, may seetlu yàggul defe naa am na centenaire bu ñu doon féete ca Paris monsieur le président de la république demoon na fa ñu doon màggal euh, tudde ko nasr mooy arc de triomphe de xawsul nasr lu ko sabab c'est de c'est de fêter un le tombeau soldat inconnu bi ñu ko waralee ci France defe dans les années vingt la woon ci lañ koy door a wax ni nañu ko def pour euh, fêter le tombeau du soldat inconnu mu fekk na yonent bi feete ko ci bu muy dund mais ci condition la ko feete parce que dañu dem xare am benn combattant bu nekk ci seen biir di xeex te xamuñu ko ku nekk di ko laaj sa moroom di wax ni kiy xeex ci suñu biir kàddu la kenn ci ñoom xamu ko waaye biñ ko sëxatoo ba rey ko yonent bi ni nañ ko gasal bàmmeel suul ko ci ba ko gasalee bàmmeel suul ko ci mu wax ni tudde leen bàmmeel bi bàmmeelu jundiyul majhul le tombeau du soldat inconnu moom moo ko njëkk célébré waaw wax ni bari na maa ngi koy nettali bërki dem bu yàggul ci mariage bu ma célébré ma leen di wax ni mission yonent bi mission bokkoon na ci yàlla wax ko ne ko fekkal ku ñëpp delloo gannaaw nga indi ko ci rang wi ñoom Seydina Abu Bakr loolu moo tax bi Seydina Abu Bakr jëndee Bilaal ñëw ci bi wax ko ne ko dama bëgg nga goreel ko parce jënd na ko te Bilaal dañ ko jàppoon ni jaam la Seydina Abu Bakr wax yonent bi ni ko goreel ko yonent bi wax ko ni ko bi mu duggee ci lislaam la goreel boppam xam nga léeg-léeg nga ñu ni la reine d'Angleterre anoblir na un artiste ou un footballeur loolu mooy ku ñu anoblir mais ki dugg ci lislaam nag dafa anoblir boppam même bu ñu jàppee ni jàmm la mu am lu doy waar loo xam ne yonent bi daf ko daan ci digganteem ak Bilaal al-Habashi dañu wax ni la dañu wax ni doxandéem la te benn bu ci nekk ci ñett yooyu tax na arab xeet doomu aadama fi Bilaal ak désert bi mu nekkoon xam ni bu mësaan tàng tàngaay bu metti moom Bilaal jëbi dafay fet di génne ay gouttelettes de ni gouttelettes de yooyu bu mësaan di génn yonent bi moo ko koy muucul ci gémmiñam di ko yàbb ci suuf mujj ku ko xeeboon naw ko moo tax koo àndal te mënu laa yëkkati ba yóbbu nga bàyyi ko waaw jaru ko parce que personnalité am solo la waaw te ànd ak nit rekk noonu ah fi nga nekk doo ko paase mais jarul ànd moo taxoon fa tabarakallahu yonent bi mission bi ci doomu aadama ci la bokkoon waaw màggal ko teral ko li mu ci réussirit kenn réussiru ko wax dëgg yàlla il faut le reconnaître waaw parce fu doomu aadama war a àgg rek fexe na ba mu àgg fa ba tax na jikko jikko lu am solo la waaw ah, lu am solo la yarin lu am solo la waaw bu mu fexee nag ba xeeb ba xeeb seen seen seen njàngale ñoom ñu ñàkk ba faw waaw ba tax na tabaarakallaahu daje yi yëpp loolu moo ko sabab bëgg a yëkkatiku ba ba àddunay tukki ñaar nag moo fi nekk benn nga bëgg a ci kaw ñu malayka walla nga bëgg raam ni mbott yaay tànn nag bu ko defee ñuy màggal Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko màggal sa kilifa ñëw teew ci lay encouragé kon ñu wax président Macky am euh, ko jaarama tabarakallahu yéen dafa diis responsabilité dafa diis te gis nga mu jépp suñu réer gàcce la mag ñi li ñu liggéey bàyyi ko fi bu ñu demee ba ñun ñi mu mujj ci suñu loxo kenn ku ci nekk di seet foo jaar sa moroom pour rendi ko lu ñuy wax mag ñi ëllëg waaw luñ leen di wax parce que itam li ñu mën yëpp def nañu ko kenn ku ne mag ma nga yaakaar waaye léegi doo doo doo xam li xew lan la waxtu wu journal génnee nga gis ku ñu rendi te jikko bu wàcc jikko gu wàcc mu ko indi te itam wax dëgg yàlla fexe ba sa jikko yëkkatiku boo delluwul ci njàngale yonent bi doo ko am boo delluwul ci njàngale Isa bu Mariam doo ko am boo delluwul ci njàngale Moussa doo ko am boo delluwul ci njàngale Ibrahim doo ko am ba tax na seet seet daal ni ñu fexee ba mu dellu gannaaw waaw ak moyen bu ko mën a defee parce que euh, l'indiscipline waaw l'indiscipline yaree diku mu yàq àdduna bi te itam fa mu daan jaar ba loolu dañ fi bu ko defee kii di alxalifa Serigne Babacar Sy daf ma wax sànq ne ma lu mu mën a def ba delloo si nit dañu ko def pour ñu delloo lu am solo la waaye rekk yenn yenn xeeti révolte yi mi jaru ko waaw yenn xeeti révolte yi jaru ko parce que bu amoon njariñ ñu wax leen ni am na njariñ parce que front bu nekk milité nañu fa mais bu ñu gisee ni amul njariñ ñu dellusi ci daara ji parce que sagesse bi ci daara ji nekkul fen waaw te am cër wàcce sa bopp lu am solo la waaw ndax góor ga ba ñu ne cër bu ne am na ko ba benn mbokkam di ko tooñ ni ko cër yi nu wax ni am nga ko foo àgg foo àgg ni ko may nihaaya mu ni ko al awdatu ilal bidaaya am cër bu nekk dellu si nekk ndongo lu am solo la ko defee la cay wàllu taxawaayu état état taxaw ko la ca wàllu taxawaayu diine diine taxawe ko waaye sagesse mu jóge àdduna tukki waaw mu sagesse jeex àdduna tukki ko defee ñuy ñaan ci mbaaxu yàlla ak kàttanam ak mën-mënam ak barke mag ñu baax ñi nu am yàlla seddal nu réew mi li nu fi bëgg ci ay jikko yàlla defal nu ko waaw waaye daal saagaante avancé wul benn réew xaste taxul réew avancé lu ci nekk am na lu ko mën a remplacer luy tax réew avancé tax na tabaarakallaahu ah, ñun ñëpp ñu jàpp ci parce que du du kenn nit mën a def waaw ci jàpp yàlla ubbi bunt loolu rek mooy li nga xam ne moo ci nekk moo war a am ñuy sant ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp di wax dëgg yàlla njaboot si kenn ku ne taxawaayam gis nañu ko. waaw kenn ku ne yéeneem fa tabaarakallaahu gis nañu ko mais defal luñ na ko ñun yonent bi lañ ko defar moom mi moom bés bi moom préparation yi moom lu ne dama koy wax alxalifa ma ni ko metti na waaw waajtaayu gàmm ma ni ko metti na mais ku bàyyi doo gis leneen loo jàpp waaw ndax leneen nekk wax dëgg yàlla ko defee fa tabaarakallaahu sant ñëpp sant euh, madame Faye madame Sall Mariam Faye yombul waaw yombul waaye taxawaay ndax ñaari jigéen rek ñoo nekk ci àdduna waaw kii sëy yem ci sëy ba ak ki mission dugal ci sëy ñi mission dugal Cissé sañunoo ñaxtu sañunoo mer waaw lu dikk ñu bóof ko waaye bu la say kese kese dugalee ci kër bu la neexee nga mer waaw waaye am na ku sañu la mer mukk ndax responsabilité tànn tànn jigéen ci ngay tànn lu am solo la sunu waajur wu jigéen dañu naan wax ni doom bu ngeen dee wuti soxna defu buñ leen wax ni seen soxna am na ko bu mu tax ngeen wàññeeku amul defu bu nu mënul corriger mu ne waaye buñ leen ne dafa gàtt xel nag bàyyi leen boroom xel mu gàtt moog boroom ba mel mu ni xel mu gàtt kenn du ko sufurle waaw ah, boroom ba ñuy dugg ci bàmmeel mu gis ñaari wax moom boobu soxna si moomu ko wax bi ci des sëriñ Abdou Lahad moomu ko wax fekk seen cheikh yónni ma fa ma dem yenn look moom moo ma ne ma samaam sëñ Tuubaa Euh, dafa daan wax ni lu ne gis na ko ci àdduna waaye mësul gis fu ñuy feccale bopp bu feesul waaw mu ni bopp feesul moo borom ba bàmmeel waaye xel mu gàttit moo borom ba bàmmeel euh, sagesse sagesse pure la waaw mag ñi lu ñu la wax seen baati wolof yooyu boo ci jël rek mën nga ci ràbb àdduna ba tax na ñu ngi encouragé madame Sall ah xam naa moom eh, tukkulóor ak séeréer la tukkulóor ak séeréer la dama am sa benn cousin séeréer parce que ay métis lañu waaw ah, métis lañu ndax maram selbe ca bër siin fa màgg waaw ci côté alpulaar sama cousin séréer boobu mu ni ma man daal li ma jaaxal mu ni ma amul tukkulóor bu jàng tubaab ak bu ko jàngul amu ci ku mën polyclinique waaw polyclinique bii ci Dakar mu ni ma amul tukkulóor bu ko mën ma ni ko lu ñuy wax mu ni ma polo kolo ngel ay ko ma ni ko sori woon nañu lool waaye diggante séeréer ak tukkulóor la tabaarakallaahu yar am na yàlla na sax ñii masawu ñëpp ndax it àdduna bi moo mel noonu yàlla mi mën a soppi nag mën na xëy wax dëgg yàlla soppil nu ko lu lu diisul baaxul lu yomb baaxul lu mettiwul baaxul ñett yi ci la yàlla tabax doomu aadama lu nekk rek nga seet fa koy jaar président Senghor wallahi daan na wax ak Serigne ni ko Cheikh dama jaaxle Serigne Cheikh ni ko bu ko waxati mukk ni ko kilifa bu ne dama jaaxle rek jaaxal njabootam mu ni ko bu dama tiit tas seen yaakaar ni ko danga jaaxle lan la si c'est un problème solution mu ngi jonkoon di xaar ñu tudd ko waaw ni ko mais bu dee un faux problème nag ba ba àdduna tukki du am solution un faux problème ba ba àdduna tukki du am solution waaye bu dee problème solution mu ngi jonkoon bul tayale seet rek ba tax na tabarakallahu yooyu yëpp dañu koy def leçon waaw di ñaan nag yàlla ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam mu defal nu réewu jàmm defal nu réew mu dal yomb na ko mën na ko yàlla nu ko defal waaw eh, tabaarakallahu bàyyil nu fi nag sunu xalifa bi di xalifa di nijaay di mag waaw eh, man nag maa ngi sant yàlla bu baax ndax wolof dafa wax ni eh, kër ku ca am mag am ca rakk yaay boroom kër ga waaw bu problème jógee nga ni sa mag jógal résoudre problème bi boo bëggee ko yónni nga yónni sa rakk kon yaay buuru kër ga tabaarakallaahu ah ñu ngi sant ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp